Serigne Modou Mbacké si mi nga xam ne mooy président représentant Khalife Sall des Mourides yi nekk ci région yi ànd ko ak euh, waa commission bu Dakar Eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne danañ maase toog fii ci eh, jumaa ji ci buntu sow bi jàkkaarloo kër alaaji Babacar Kebe Njuga ngir di séntu weer wi bu ñu ko séntoo nag ba waxtu wi nga xamante ne ci lañ war a noddu gee jot danañ maase jokkoo ak kër Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha bu ñu jokkoo ba noppi nag ndigal dana bàyyi ko ci kër Cheikh Mahamadoul Mountakha ñëw ci Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne mooy jottali kàddu yi kon jamono ji ñu toll séntu nañu weer wi ba waxtu wi jot na am na ay ndigal yoo xam ne jëlee nañ ko ci kër sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha ginnaaw bu ñu jokkoo ak région yi damay bàyyi ak sëriñ Abdou Diop mu leeral leen région yi nga xam ne jokkoo nañ ak ñoom ak ndigal yi nga xam ne moo bàyyi ko ci sëñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw kay ni ko sëñ Fallou Gall si la waxee rek li ñu baaxoo def def nañ ko muy sëñ bi dana yebal ci jumaa ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne nu yéene ne nañ ñu defee yi bi ñu ba waxtu wi nag yàlla dogal na xibaar yu bari jóge nañu ci régions yu bëree bari wane ne weer yu feeñ na ba yàlla dogal na xibaar bi nu mujj a jóg jël jël sax ci fa sëñ ba la jóge fa sëñ Muntaxa léegi dina ko yëgal waaye boobay da ko dañ wax mu ne moom du def dara lu day day soq ko fi noonu dañ day xam ñu nekk ba noppi booba lañ daal di wax yëgal ni ko nuyu yooyu xibaar ak si na ci ne kon mën nañoo yëgle ne weer yu feeñ na kon xam ne weer yu feeñ na suba mooy bisu korot suba ci altine ji mooy bisu korot weer yu feeñ na yàlla na ci yàlla may dimbal ak xéewal ak jàmm ban ban fekk ko ñun ñëpp. ak àll ci dara ci dara ci Sëriñ Tuubaa xaar man